war nañu mën a industrialiser tous nos matières premières un nga taxaw ni bépp sénégalais ak di si et de la diaspora dañuy ubbi ay sociétés nationale sur l'or sur le fer sur le ciment sur euh, euh le concassage maanaam jël ay matuwaay ci matière premières yi des produits finis ou semi-finis ñu sénégalais yi ñëw taxaw nga ni exonération fiscale yi nga xam ni moom laay defal multinationale yi dama koy defal sama doomu réew ndax ñoom ñoo ko moom lépp loo xamante ni dañuy teg pour tabax ko état jël cinquante cinq pour cent teg ci taabal ji ni cinq pour cent yi ay action la dañ koy jaay bépp sénégalais ak sénégalaise nga wut ay comptoir commercial or ci biir réew mi nga toog 5 ans. dinga am plus de cent tonnes or ci biir réewum Sénégal cela veut que ni loolu en cinquante Sénégal mën na dépasser sax Dubaï parce que or la ñuy wax zircon bi laala ko fer bi laala ko ciment bi laala guñ ko pétrole bi laalaguñu ko gaz bi laalaguñu ko kon ñun li dal yeneen réew yi nga xam ni or pétrole kese lañu yor ak gaz loolu ñun weesu nañ ko parce que ñun defuñu sunu lépp teg ko ci pétrole ak gaz ndax am nañ yeneen ressource kon tey ñun yàlla deseelootuñu dara ni ma ko waxee léegi en offshore comme en onshore kon jàpp nañ ne tey si nous parvenons à industrialiser nos matières premières gérer suñuy matières premières lépp luy flow line maanaam ligne de production up stream down stream de amont en aval ñu gérer ko suñu bopp en toute transparence jàpp nañu ni fi ñu bëgg egg suñu secteuru mine mën nañ ko faa yóbbu xam nga bu ñuy toog gàcce lu toll ni Sénégal tey ressources yi fi nekk yépp ñu lay wax waxu ay 167 milliards moom la secteur u mine yépp génne loolu xaste la te dama yaakaar ni loolu nawloowuñu buñ jógee ci secteur boobu ñu ñëw tey ci lii nga xamante ni moom mooy wàllu pétrole bi ak gaz bi pétrole bi gaz bi ñépp xam nañ ni am na 29 blocs de pétrole ou Sénégal déjà pour être clair ça c'est le nouveau code pétrolier parce que lépp lu ñuy wax document lañ koy teg lii c'est le contrat de Saint-Louis offshore profond ça c'est le euh, contrat de Sangomar ça c'est un catalogue des ressources minérales au Sénégal lii ouvrage la boo xamante ni pour ne pas faire de publicité dinañ ko génne ci fan yi di génn ça parle des ressources minérales au Sénégal lii projet de loi portant le code gazier la kon lépp lu ñu fiy wax rek c'est des documents yoo xamante ni jàpp nañ dañ ko war a partager situation actuelle bi ak li nga xam moom la ñuy proposer kon mën nañu waxit ni tey gaz bi nga xamante ni ak pétrole bi nekk Sénégal am na 29 blocs ci 29 blocs yi am na 7 en onshore maanaam ci jéeri ji am na 7 blocs 13 am na ci géej 9 am na ca biir géej sur l'ensemble du bloc yooyu yépp ñaar kese lañ ciy def développement maanaam ñaar lañ ci investir pour liggéey ci muy blocu Sangomar di wàllu pétrole bi ak bloc bi nga xam mooy Saint-Louis offshore profond muy yaa ci gaz bi ma ñëw ci d'abord li nga xamante ni moom mooy gaz bi suñu diggante ak Mauritanie gaz boobu mu ngi nekk ci bloc bu ñuy wax Saint-Louis offshore profond Saint-Louis offshore profond superficie yi toll 9463 kilomètres carrés ma fàttali ne dafa am rapport de présentation 0687 bu ñu signee le 5 juin 2012 ak lettre rapport de présentation 0792 bi ñu signé le 11 juin 2012 par le ministre Aly Ngouille Ndiaye bi ñu paree mu am ñaari décret présidentiel ñaari décret présidentiel yi muy 2012 596 ak 2012 597 bi nga xamante moom laa mujjee wax muy Saint-Louis offshore profond signé par le président Macky Sall ci ñaari décret yooyu tey jàpp nañ ni moom moo concerné blogu Saint-Louis offshore profond ñu war fa exploiter gaz gaz bañ fa exploiter mu ngi tudd méthane réserve yi toll ci 570 milliards de mètres cubes ci li nga xamante ni moom la ñu waxagul ci ay réserve mën na ko ëpp nag mais pour le moment nañ jàpp 570 milliards plan de production journalière am dañu ni dina fa génne 14 millions de mètres cubes par jour liquéfaction processus la maanaam gaz la bu ñu war a togg defar def ko liquide pour après def ko ci ay bato bateau yi ñu ngi tudd méthanier pour sécurisation moom la ñuy jël pour yóbbu ko Europe parce que mënoon nañu wut ay gazoduc mais ay bateau koy yóbbu méthane boobu c'est l'un des énergies les plus propres du monde parce que quatre atomes d'hydrogène la am ak benn atome de carbone kon day polluer mais mu ngi polluer moins de vingt cinq pour cent que le pétrole di polluer quarante cinq moins de quarante cinq pour cent que le charbon kon bu pollution day am. ci àdduna ñun polio wu àdduna te jàpp na it nit ñi kon war nañu mën a exploiter sunu gaz pour egg fi nga xam ni pays industrialisé yi foofu lañu egg kon nañu gëm sunu bopp dëggal sunu bopp li ñu gëm ñun ak sunu leader dañu ne réew du ay tonnes yu ñuy teg ci bopp xam-xam la ak vision mais lu jafe ak lu yomb aussi mu ngi ciy tegu te loolu mu ngi dépendre que njiite réew moomu mooy le courage politique le courage politique yomb na jafe na mais jàpp nañ ni yomb na ci ñun parce que tey amuñu la complexe de ces tubaab ni ñu jànge xam-xàmmee noonu la ñuy jànge xam-xàmmee ñoom mënuñu dem sans ñun li ngay dégg les pays industrialisés yépp seen matière première ci Afrique lañ ko jëlee kon ñun bu ñu yoree matière première yooyu cela veut dire que ñun yàlla ñoŋal na sunu réew yi nga xamante ni moom mooy Afrique li ci des na courage politique la et on courage politique moo tax sànq ma ni de la, concorde, de, de, de la concurrence à la concordance vers une première république à la sénégalaise. Parce que bi ñu yor c'est une république importée. Cette république ne nous ressemble pas, ne nous rassemble pas. Quand Japon ñu une république Bignor, ñu investir, ñu investir ko sur le secteur primaire et le secteur secondaire, fi ñu bëgg egg dañ fa egg. Ndax bu fekkee ni li ñu am investir nañ ko ci càmm gi, napp gi, élevage bi lépp loo xamante ni teg nañ ko ci petite et moyenne entreprise bi des des une production nga xamante ni industrialisation de nos matières premières que ça soit des produits finis ou semi finis fi ñu bëggee a yóbbu sunu réew dañ ko fa yóbbu malheureusement en 12 ans de gestion de ce régime jàpp nañ ni amul benn industrialisation bu ñu def par rapport aux nos matières premières te pourtant day yomb na en deux ans on peut industrialiser trois quatre voire cinq ou six de matière matières premières que ça soit des produits finis ou semi-finis kon ñun jàpp nañ ni xam nañu fi Sénégal toll fan lañ ko war a jëlee fan lañ ko war a yóbboo ak naka lañ ko fay yóbboo li ma la wax léegi compétence boo bëgg ci Sénégal am na fi am na à l'extérieur ñu jël ko mettre à la disposition des Sénégalais et des Sénégalaises buñ jógee foofu di wax rek ni loolu nga xamante ni tey jii moom la ñu am actionnaire majoritaire bi ci GTA ba tey maa ngi ci gaz bi BP la moo am 60 pour cent Cosmos moo moom 30 pour cent yi muy 90 pour cent leneen li nag ñu ñoo signé le 8 février je pense 2014 euh, un accord bilatéral un accord de partenariat intergouvernemental entre le Sénégal et la Mauritanie loolu defe naa président Macky Sall moom moo ko signé kon gaz bi nga xamante dafa nekk sunu digganteeg Mauritanie ñun ak Mauritanie ñun ñoo ko bokk ñaari contractant yi nga xam ne ñoom ñoo koy si ñoo koy liggéey génne ko mooy BP moom moom 60 pour cent kii nga xamante ni moom mooy Cosmos moom moom moom 30 pour cent. ci kaw loolu damay wax rek sur le code pétrolier dafa am article yoo xam ne dafa ma daf ñoo daf ñoo soxal lii nga xamante ni tey Sénégal dañ koy ndamoo dañu ni. képp ku yor titulaire d'autorisation d'exploration loo mënti gis ci géej comme ci jéeri da nga koy notifier le ministre en charge des hydrocarbures au plus tard dans 48 heures kon jàpp nañu ni tey bi ñu xoolee waaxi Sénégal yi en en offshore jàpp nañ le Sénégal est devenu un pays pétrolier un pays gazier parce que qu'on par des milliards de mètres cubes de gaz on parle des milliards de barils de pétrole kon war nañu mën a jóge fii nga xamante ni moom mooy le modèle de contrat de partage muy bay séddoo dem lii nga xamante ni mooy contrat buyback contrat de service ñun am nañu ressource ku ñëw pour liggéeyal ñu mën nañu laa fay nga nekk un sous-traitant de Petrosen mais flow line bi tout sa qui est ligne de production ñun Sénégal ñu ñoo koy gérer sunu bopp de amont en aval nga liggéeyal ñu bu ñu amee lu ñu la fayee ñu fay la ko en espèce amuñu lu ñu la ko fayee ñu fay la ko lii nga xamante ni moom mooy par baril wala baril bu nekk temps la mu ngi dépendre par rapport ak intérêt Sénégal fi mu nekk li ñu gëm daal mooy les pays n'ont pas d'amis ils n'ont que des intérêts tey bu waa BP nangoo xayrun bu ñu nanguwul nga seeti ñi nga xam ne ñoom ñooy cosmos américains yi bu ñu nanguwul nga dem seeti australiens yi bu ñu nanguwul nga dem seeti riche yi l'essentiel mooy que le Sénégal se retrouve dans ce schéma bi nga xamante ni tey àdduna mënta dem sans sa gaz adduna mënta dem tey sans sa pétrole booy waxoon rek tey adduna devise ñaar rek moo ko garanti muy or ak te am nañu port or am nañu pétrole beneen bi ma ñëw ci chapitre 6 article 48 dañ le titre du contrat pétrolier et assujetti en période d'exploration maanaam ci jeex ak période de production li nga xamante ni moom mooy des engagements de dépense sociale au profil des populations et non recouvrables maanaam ay dépenses sociale la compagnie yooyu war a def pour population bi te loolu amul loo xamante ne dañ la koy rembourser waat yow tey ñi ñëw ci suñu waax yi di jeex yépp ak war a exploiter yépp lan lañ defagul pour ñii nga xamante ni ñoom ñooy population bu Sénégal ñu ñëw ci article 7 article chapitre 7 article 56 dañ ni la tous les revenus pétroliers tous les revenus pétroliers dus à l'État et perçu par ce dernier, y compris les réalisations sociales effectuées par les entreprises pétrolières et gazières, sont communicables à toute personne et sont rendus publics dañ ni bépp dërëm boo xamante ne état bi da ko laal ak lépp luy réalisation sociale yoo xam ne entreprise pétrolière gaz yi ñoom ñoo ko def ci réew mi dañ ko war a communiquer bépp nit ba pare rendre ko public loolu lan la ci état def kon transparence mu ngi taxaw ci kaw transparence boobu le président Macky président de la République du Sénégal, gardien de la Constitution, chef suprême des armées et de la magistrature, clé de voûte de toutes les institutions. C'est ki qui nomme les emplois civils et militaires. bu réew mi doxee responsabilité am la bu taxawee responsabilité am la bu delloo ginnaaw responsabilité am la président boobu la ñu jël plus de 44 mille milliards jox ko ni ko doxalal sa cëggal guy la kon am na responsabilité ci Sénégal tey ni mu doxee président boobu la ñu jàpp ni en 2012 bi muy jël réew mi endettement wu Sénégal mu ngi toll woon ci 2741 milliards tey jii ñu ngi affleurter plus de 14000 milliards d' endettement cela veut dire que endettement wu Sénégal léegi dem na ba nekk le triple du budget du Sénégal réew boobu ba tey bi ñuy jël lii nga xamante ni moom mooy euh, ñoom bi ñu jël réew nguur gi euh, chômage Sénégal mu ngi tolloon ci 10 point deux tey jii ñu ngi ci 24 point 1 cela veut dire que Sénégal ñu ngi ci dépression tey chômage boo xam ne jóge na 10 point 2 tey mu ngi ci 24 point 1 on te parle si si Sénégal a ngi dox loolu sénégalais yi ñoom ñooy jugé beneen bi ñu ñëw ni corruption fi la wulee ñaay parce que sunu indice de la corruption année passée mu ngi nekk milliards de nos francs même président boobu moom moo jël décret 2012 15 38 bi ñu signee le 12 août 2022 ni képp koo xam ne da nga laal ci pétrole bi muy SAR société africaine de raffinage di Petrosen Holding Exploration di Petrosen euh, Holding di Petrosen euh, développement euh, exploration di Petrosen trading et service di Senelec di réseau yi di institut national du pétrole du gaz ñii nga xam ne ñooy laal mbiru gaz bi génn naa leen ci code des marchés publics cela veut dire que ñoom mën nañoo def entente directe entente directe mooy gré à gré ku ñu neex joxante marché ci seen biir loolu mooy kon dañu bëgg a këllamtikoo lii nga xamante ne moom mooy sunu pétrole ak sunu gaz te loolu transparence nanguwu ko kon jàpp nañu ni lu mel ni IGE nga jël ko logé ko à la présidence la république nga jël lii nga xamante ne tey jàpp nañu tous les corps de contrôle nga war leen a bàyyi ñu def seen liggéey en toute transparence bu ñu génnee décret bu mel nii ça fait froid au beneen bi ñu wax la ni la le titulaire di permis pétrole du contrat pétrolier doit indemniser l'État et toute autre personne pour des dommages et préjudices résultant des opérations pétrolières lii nga xamante est causé par lui-même ou par les entreprises travaillant à son compte dañ ne la ci fii nii bépp société boo xamante ni ñëw nga am contrat pétrolier da nga war a indemniser da nga war a dàmp état ak bépp nit boo xam ne da nga koo teg dommage et préjudice dommage mooy yàqal ko te jàpp naa ne ci côté bi bu fekkee ne dañuy wax tey jii opération pétro résultat des opérations pétrolière dama yaakaar ne napp gi ci la bokk léegi compagnie yi war a exploiter pétrole bi ak gaz bi lan la ñu war a dàmpe ak état lan la ñu nar a def ak sunu nappkat yi nga xamante ne tey géej gi la ñu amoon nga xam ne ñoo dem en ultra deep ca biir biir géej tey lii nga xamante signé nañ kook moritani mu nekk sunu digganteeg Mauritanie pourtant de bi ñuy waxtaan pour nga xamante dañoo war a bokk gaz bi nga xam ne ñun ñoo ko moom ñun ñoo ci gën a loru ci wàllu napp parce que Saint-Louisiens yi du ñu mën a dem géej pour nappi maanaam je veux les côtes du côté sénégalais kon waroon nañu mën a xalaat ak géeju Mauritanie ni mu yaatoo ba dibu kon jàppoon nañu ni manque à gagner boobu nga xamante ni exploitation gaz bi moo leen ko nar teg am na nuñ ko mënoon combler ba nga xamante ni duñ ci gaañu niñ ci war a gaañoo loolu la amoon lu may wax si li nga xam ne moom mooy gaz